Good news! Do you know that kids 5 years and up are now eligible to take the coronavirus vaccine for free? Yes. Now, kids 5 years to 11 years and up can take the COVID 19 vaccine.

or 425 248 0810. Wherever sin, wherever sin, wherever sin. In Alhamdulillah, Nahmaduhu.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 alhamdulilah mbokki jullit yi sant yàlla subhaanahu wa taala borom bi nga xam ne moom moo binda sàkka doomi adama tàggatal ñu mboolem li nga xam ne moo nekk si àdduna pour njëriñu doomi adama bi ñu ngi del si waat suñ programme bi nga xam ne moom nañoo ooyee shahru ramadan at bi am nañ tuuti delayance Um, pour programme bi waaye alhamdulilah yàlla may nañu tawfiq um, ñu ngi dugg si programme bi incha allah lañ bugg a waxtaanee bi mooy nekk li nga xam ne mooy um, qisasul quran mooy stories yi nga xam ne mooy ñoom lañu yàlla subhanahu wa taala biir quran yàlla subhanahu wa taala mu ne nahnu naqussu alayka ne ñun ñoo la naa neetalil um, stories yi nga xam ne ñooy stories yi génn um, si stories yi yëpp so bépp story boo xam ne Quran indi na ko yàlla subhanahu wa taala mu ne yooyu ñooy yi génn ko nga gis ne yàlla suy netali lañ soxla pour xam si nettali boobu noonu rek la wax yàlla duñu tegal loo xam ne um, duñu amal jëriñ waaye lépp li nga xam ne yàlla wax na ko si story bi rek mooy li nga xam ne moom la doomi aadama mun a njëriñoo si loolu incha allah tey dinañ doore um, nettali yooyu noonu yi nga xam ne yooyu la yàlla nettali si Quran bi doore ko suratul baqara si um, ñetti juus bi ñi nga xam ne xam nañ suratul baqara wala dañ ko dee jànga di nga xam ne ñetteelu juus bi mu ngi doore aaya bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala fala moo wax tilka rusul faddalna baadakum ala baad te yàlla subhanahu wa taala mu ne yonente bi wala yonente yi ñu ngi leen am na ñoo xam ne ñoo gën ñeneen yi man kallama allahu rafaa baadahum darajat ngir am na ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala wax naa ñoom Um, si coobareem ak si man-manam ak mu am ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala ekkati na leen so yaani uh, jus bi noonu la doore te jus bi tamit moo am li nga xam ne mooy aya bi nga xam ne moo gën a rëy si alquran ñi nga xam ne ñu ngi déglu wala ñu ngi seetaan su fekkente ne jàng nañ xadis nañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si làmmiñam mu ne alquran am na benn aya aya bo xamne mo gëna reuy mo gëna mag am ci alquran aya bu mu noonu moy ban aya moy fu yàlla subhanahu wa taala di wax ne allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ila akhir aya be fu aya bi um danaka li aya la bo xamne ne ne bépp julit bi nga xamne mu ngi déglu programme bi mun na aaya bi te mun na ko jàng so loolu tax bokk na si nga xam ne mooy njëriñi aaya bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp ki nga xam ne daf di jàng aaya bi um, afta mooy gannaaw bum jeexaleem mboolem juleem mooy juli juróomam ah daf di jàng aaya bi mu ne kii li nekk digganteem ak aajana mooy dee mooy yaani dee rek fi mu nekk nii moo nekk gàllankoor digganteem ak àjjana so loolu tax war nañoo góorgóorlu saa yuñ jule suñ juli farata dooree ko fajar ba isha suñ paree def suñ askar buñ fàttee di jàng aaya bi muy ayatul kursi te aaya bi yàlla subhanahu wa taala beneen aaya bu mu teglante si aaya bi mooy aaya bi nga xam ne jullit yu bari far nañ ko Ehm, jànga su fekkente ne ehm, bàyyi ngeen xel di ngeen gis ne nit ñi suñ demee ba koona ah bii lañ de bëgg a use fu yàlla subhanahu wa di wax ne laa ikraha fi diin waaye daw na yaram ne jullit yu bari ñu ngi use aaya bi waaye ñu ngi ko use out of context ñi nga xam ne ehm, soo leen waxee dara rek ñu ne la ne la ikraha fi diin mooy diine amul forcé Euh, yaani loolu dëgg waaye ñun ñu bari si ñun dañ ko dee use out of context waaye incha allah loolu nekkul topic bi tey uh, just lii dama create like a sort of a preamble pour dugga si li nga xam ne mooy stories wala nettali yi nga xam ne yooyu lañ bugg a nettali uh, bàyyee ko si alquran yàlla subhanahu wa taala teglante si aaya boobu noonu mu ne allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min alzulumati ila an yàlla subhanahu wa taala mooy wali ñi nga xam ne mooy aji gom yi ngir daf leen di génnee si lëndem indil leen si nuur mooy indil leen si leer ظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا الله سبحانه وتعالى من نيغا خامني موي mooy ñi nga xam ne gëmuñ yàlla subhanahu wa taala bu ne ñooñu seen xarit yi duñ kenn lu dul seen taaguut yi mooy ñi nga xam ne yooyu lañ dee jaamu gannaaw yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala mu ne ñii duñ leen dee defaral dara lu dul génnee leen si leer yóbbu leen si nga xam ne mooy lëndëm ulaika asxaabu naar hum fiha xaalidun mooy ñi nga xam ne mooy ñi ñooy nit ñi safara yi te ñii dañ faa dëkk dañ fa dañ fa mos a génn abadan fiha xaalidoon dañ fa mos a génn léegi ñu dugga si benn si xissa am si nettali nga xam ne yooyu lañ tuddee alquran am programme bi tey bokk na si yooyu yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax si benn jus boobu noonu alam tara ila alladi xaaja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يا الله سبحانه وتعالى mu ne ndax gisuleen waa ji دقون xam أك إبراهيم عليه السلام si xëccoo ak mooy seen borom subhanahu wa ta'ala mooy seen borom subhanahu wa ta'ala mulkiyam euh, yàlla subhanahu wa ta'ala mu Ibrahim wax na waaji na man suma borom man suma borom moo dee joxe dunda mooy joxe dee tamit mooy ki dunda yàlla subhanahu wa ta'ala moo la euh, life boobu noonu waaye ki tamit yàlla subhanahu wa ta'ala rek a mooy yàlla subhanahu wa taala moo amee doole boobu noonu pour ah dundal keena mu rey keneen tamit ne lii melokaan la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moom rek a am léegi waaji kaafir bi ki nga xam ne mooy Namrud ki nga xam ne moom moo nekkoon di xëccoo ak Ibrahim alayhi salaam moom lan la wax moom lan la tontu Ibrahim alayhi salaam mu ne ko ne ana uhi wa umit man tamit dama dee dundal ma dee rey soo gis nga nit ki su demee ah, ba beew ah, yàlla may ko tuuti xéewal mu beew si xéewal boobu noonu même bugg a teg boppam si palaasi yàlla subhanahu wa lim ko julal jural mooy musiba yàqu-yàqu ak li nga xam ne mooy meret yàlla subhanahu wa taala day waaji moom nii la tontu Ibrahima alayhi salaam mu ne ko de man tamit dama dee dundal te dama dee rey borom xam-xam ñu ne lim def mooy dafa dem ci prison wala dafa oote pour ñu indil ko ñaari nit ñi nga xam ne mu ngi leen tëj si kaso kenn ki mu rey ko keneen ki mu baalal ko pour mu dem moom loolu mooy dalilam ne moom daf dee dundal te daf dee rey tamit yaani so gis nga nit ki su demee ba ba door di toolalee boppam ak yàlla subhanahu wa taala noonu la dee wàccee suufel si kanam yàlla subhanahu wa taala ibrahima alayhi salaam ne ko man suma borom mooy buur bi nga xam ne moo dee jëlee naaj bi si east ah mu yóbbu ko si west naam léegi waaji bu mu waxee ah, namrud ibrahim bu mu waxee namrud lii moo xam ne waa loolu moom doole la boo xam ne ah yàlla moo ko amee waaye Ibrahim lim ko wax mooy su fekkente ne comme que man dama la ne suma borom moo ko jëlee from east to west léegi yow dama bëgg yow nga jëlee ko from west to east li nga xam ne li nga xam ne nekkul di normal route of li nga xam ne mooy naaj sawa yàlla subhanahu wa taala mu ne fa buhita alladi kafar wallahu la yahdi alqawm alzalimin so mu ne kafir bi jaaxal amut lu moo wax yàlla subhanahu wa taala mu ne moom duy jubal ñi nga xam ne mooy aji tooñkat lañ sa mbokki jullit yi ah, gis ngeen si story bi li nga xam ne loolu lañu yàlla nettale si Quran diggante Ibrahim alayhi salaam ak Namrud ah, ni mu fa demee Namrud jaam yi yàlla la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dénk na ko tuuti alal dénk ko tuuti doole moom mu dem beew mu dem teg boppam si palaas yi yàlla subhanahu wa taala waaye yàlla subhanahu wa taala won ko ne palaas boobu noonu man yàlla borom tabaraka wa taala nekk yelloo palaas boobu noonu so su ko defee jaam bi su ko yàlla xéewalee bum dem be toolale be di toolale boppam ak boromam tabaraka wa taala ngir yàlla subhanahu wa taala moom kenn la moom faalun lima yurid li ko neex la dee def laa yusalu amma yafalu wa hum yusalun moom lim def amul kenn koo xam ne mun na koo laaj li tax mu def lim def waaye moom mun naa laaj ñëpp tabaraka wa taala mooy xalaqa samawaati wal ard moom moo binda sàkka li nga xam ne mooy juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf ak lépp li nga xam ne moo nekk diggante ñaar yi mboolem doomi aadama mboolem bahima mboolem li nga xam ne muy nekk diggante asamaan ak suuf li nekk si kaw asamaan li nekk si roon suuf si lii yëpp ah mbindee fi borom bi tabaraka wa taala la moom borom bi tabaraka wa taala moom moo leen amee lillahi mulku samawati wal ard moom borom bi tabaraka wa taala lahu ma fi samawati wa ma fi l ard lahu man fi samawati wa man fi l ard so mboolem li nekk si diggante ñaar yi wala mboolem li nekk si biir asamaan ak suuf nekkul dara lu dul li nga xam ne si borom bi tabaraka wa taala la bàyyee ko te borom bi tabaraka wa taala moo ko amee so ki moy suñ borom tabaaraku wa taala mbokki yi ah mooy yàlla subhanahu wa taala moy buur bi nga xamne moñu wacce li nga xamne moy quran te quran bi yàlla subhanahu wa taala mo ñu wax ne ci wer bi nga xamne mom wer bi lañ ci wer bo mu non lañ nek moy wéri ko yàlla subhanahu wa taala mu ne um wéri ko wéri quran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda yàlla subhanahu wa taala mu ne si weeri koor si la wàcce li nga xam ne mooy alquran inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin mooy si mooy si guddi benn si guddi weeri koor yooyu noonu mooy bési laylatul qadar bés boobu noonu lañ wàcce li nga xam ne mooy alquran inna anzalnaahu fi laylatin fi laylatil qadar naam ñun ñëpp jàng nañ wala dañ dee jàng suura boobu noonu bi nga xam ne moom yàlla subhanahu wa taala jagleel na ko pour ben bus wala ben goudi bobu non nga xamne so ci jamo yàlla dina dina ko tolale wala yani fay bi ni ko tolale ak li nga xamne moy mooy at jaamu yàlla tabaraka wa taala wala junne wer junne wer jaamu yàlla subhanahu wa taala nga xamne soko soo in terms of at va nek borom ñu about eighty three years so yani mooy bo mu nonu ci la yàlla subhanahu wa taala wacce li nga xam moy alquran so yani quran wéri quran la alquran wéri ah pour wéri ko la so lolo ta amna solo torop pour ñu ñu busy suñu bopa ñu um, ñu focus um, yokka li nga xam moy suñu joko ak alquran te alquran yàlla subhanahu wa taala degala la ah, mu ne ñi nga xam dañ jé jang alquran tilawatahu ana an layli wa ana an nahaar mooy guddi ak bëccëg ñu ngi busy rek di jàng alquran mooy ñëw nañ si xadis sax ne waa ji nga xam ne moom dafa ajo si quran trop so much so that time sax pour ñaan yàlla subhanahu wa taala yi nga xam ne mooy soxlaam mooy aajo mi yàlla subhanahu mu ne alquran bi nga xam ne moom moo ko bisiloo bi moom amul time pour ñaan yàlla subhanahu wa taala soxlaam alquran boobu doon na nekk sabab yàlla fajal ko li nga xam ne mooy soxlaam yi even though sax moom ñaanut yàlla li nga xam ne mooy yooyu so alquran mooy li nga xam ne moom lañu war a dépendre suñ waxtu bu bari si weeri koor bi guddi bi guddi ak bëccëg ñu am jokkoo ak téere yàlla subhanahu wa taala parce que yàlla subhanahu wa taala mu ne afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha li ñoo wax ponda arab yi ñu ne tadabbur mooy ngeen ponder um, think deeply about um, messages mooy xibaar yi nga xam ne moom lañu yàlla subhanahu wa taala um, inder si biir alquran falaa yatadabbaruuna alquran ndax doo leen toog xelaat aaya yi mooy aaya kéemaan yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala yooyu la wàccee si biir alquran bi ngeen jël time pour read jànga alquran pour ngeen try tamit understand li yàlla di wax si li nga xam ne mooy alquran because alquran yàlla wàccewu rek yaa wàccewu ko rek pour ñu di ko ñu di ko jànga guddi ak bëccëg waaye li fa nekk mooy ah, message bi nga xam ne moom la yàlla yónni si al alquran moo gën a am solo so ah, baax na trop pour jullit bi sometimes muy jël benn aaya ah, ñëw na si ay athar si ay narration si yenn si sahaba yi dañoo jàng benn aaya rek guddi bi yëpp loolu la ñoo def di jooy di xelaat li nga xam ne loolu la yàlla subhanahu wa di jàngal si alquran boobu noonu démb rek euh, suñ juma euh, imaam bi mu ngi doon wax benn benn story benn waay boo xam ne deena si dayin bu rafet ah, daf doon jiite nit ñi si biir sola euh, mu mu doon jàng suura li nga xam ne mooy suuratul suuratul duha ah, ñëw si bi nga xam ne la yàlla di wax mooy bés penc wala um, next wall alaaxira moo gën li nga xam ne mooy dundi àdduna xayrun laka minal ula moo ñëw si aaya boobu noonu duy mun a wax xayrun laka minal ula su ñëwee mu doo di jooy nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon di julli gannaawam ñu bari foog ne dafa mistake waaye waa ji fekk uh, li nga xam ne loolu la yàlla nekk di wax si aaya boobu noonu moo ko duga dem tax munta jàlla li nga xam ne mooy aaya boobu noonu um, eventually jàng na ko waaye si aaya boobu noonu la am daanu xum de dem uyu borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla may façon dee yu rafet yu noonu dee bi nga xam ne um, sa kalima bu mujje loolu nekkul dara loolu aaya alquran uh, sa imagine waajooju noonu ñi nga xam ne yàlla may na leen dee yu rafet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 pour li nga xam ne mooy seen ak seen borom tabaraka wa taala ah so malaika yooyu noonu mooy jëmbi sella yooyu noonu la yàlla di yónni allah taxaafu wala taxzanu te malaayka yooyu noonu ñu ngee ñëw pour bégal kii ne kii fawzan azim moy the greatest success fi mu nekk ni li nga xam ne aljanna mooy ngërmande boromam subhanahu wa taala la amee so ngir loolu malaayka yooyu noonu ñoo ñëw di welcome ne yenn euh, narrations ñëw di wax ne seventy thousand angels euh, malaayka ñooy ñëw pour ñëw welcome waa ji pour yóbbu ko li nga xam ne mooy ah, palaasam bi nga xam ne mooy euh, boobu la ko yàlla jagleel te malaayka yooyu noonu duñ ñëw rek pour istigbaar pour welcome ko waaye dañoo ñëw ay ak ay kaddu ko ne tatan ah, allah ta xaafu wala taxzanu bul tiit bul ragal ah, allah ta wala taxzanu wa abashiru te dinañ ko jox li nga xam ne mooy good news glad tidings ah glad tidings of what mooy janna ne yàlla subhanahu wa taala janna la ko jagleel so li mooy real success mbokki jullit yi nit ki dee si xaal boobu noonu mu am façon welcome boobu noonu from angels from malaayka yi pour dem yóbbu ko pour dem ak boromam tabaraka wa taala yal nañu yàlla may ñun ñëpp loolu so yaani ah, lii mooy alquran mbokki jullit yi alquran suñ dooree di ko waxtaanee nañ fi toog ay ata at wala suñ diiri dunda bi yëpp waaye duñ mun a wax yëpp li nga xam ne loolu la yàlla subhanahu wa taala wàcce si biir alquran si wàllum jëriñ pour doomi adama si wàllum jëriñ pour man ak yow suñ aduna ak suñ alaxira mbokki julit yi beneen xissa beneen nettali bi nga xam ne boobu la yàlla subhanahu wa taala wax si si jus bi mooy si ñetteeli jus biñ wax ne mooy suratul baqara yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax euh, xibaar yi benn waay nga xam ne boroom xam-xam yi euh, ñu ne moom mooy Uzayr alayhi salaam ñeene boroom xam-xam ñu ne euh, yonent yàlla la ñeneen ñu ne nit ku baax la rek waaye du yonent yi wala kulli xaal li si nekk rek waaju baax la jaami yàlla bu baax la subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala doole aaya bi mu ne aw kalladi marra ala qaryatin wa hiya xawiyatun ala yàlla subhanahu wa mu ne anaa gisu leen waa ji nga xam ne moom romba na dëkk bi nga xam ne dëkk boobu noonu loo faa gis rek soo fa rombee mooy ne am na nit ñoo xam ne dëkkoon nañ fi you would see signs of life waaye there is nothing living mooy ñëpp dee nañ dara dundaatut si dëkk boobu noonu so waa ji mu gisee xaal boobu noonu ah, si saas bi <laughs> allahu akbar mu door di yàlla di di laaj yàlla subhanahu wa قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ne ñi nga xam I am seeing signs of life ne amoon na nit ñoo xam ne dëkkoon nañ fi the bones are scattered scattered everywhere so there is sign of life waaye kenn nekku fi hmm? so mulaj قالَ أَنَّ anna هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا mawtiha naka la yàlla naka la yàlla di dekkali ñi nga xam ne ñoo deen yi ha naka la yàlla di def loolu subhanallah ajib allahu akbar waaye moom fàtte na ne borom bi tabaraka wa taala moom moo sàkko moom moo sàkkoon ñu ñëpp without a blueprint without a plan from nothing inna xalaqna al insan min nutfatin amshaj yàlla daf leen créer from what you know what ndox voilà loolu from trop suuf la yàlla jël adam alayhi salaam so moom laajteem léegi bu mu xaal bi waaye mbokki jullit yi so story bi liñ liñ faa jàng tamit mooy nit ñu baax ñooñu noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo romba in every situation ñoom ñu ngi gis ñu ngi jëlee opportunity boo xam ne naka la ñoo xam suñ borom tabaraka wa naka la ñoo understand kan mooy yàlla tabaraka wa mu nii moom every situation bu ñëw si ñoom rek loolu mooy seen jubluwaay la situation bi dafa ñëw ngir wan ngir benn mbir rek mooy naka laay xàmmee li nga xam ne wala ki nga xam ne mooy suma borom tabaraka wa taala soo muñ moom mu ñëw gis dëkk boo xam ne ah kenn nekku fa ñëpp dee nañ amut any sign waaye moom li ñëw si xelam at that point mooy léegi comme que ñi ñëpp dee nañ léegi naka la yàlla di dekkali ñi subhanallah Ya Allah subhanahu wa ta'ala immediately fa amatahu Allahu miyata amin thumma ba, Ya Allah subhanahu wa ta'ala instantly mom si bopam ñu rey ko for hundred years allahu akbar now so yàlla mu ne ñu rey ko for hundred years so comme que moom moo dooroon di laaj yàlla subhanahu wa taala qala anna yuhyi hadihi llahu bada mawtiha naka ngay dekkalee ni after bi nga xam ne nañ ba pare yàlla subhanahu wa taala mu ne léegi a koo explainal loolu léegi nañ def practical example with him and how can we do that mooy first thing mooy moom si boppam dañ koo rey so léegi moom si boppam la ñoo wone naka la ñoo dekkali ñi back to life allahu akbar la ilaha illa allah allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad so mbokki julit yi yàlla subhanahu wa taala mu fa amaatahu llahu miata amin thumma baat Qala kam labith. Legi buñ ko reyee yàlla subhanahu wa taala mu ne nañ ko fo téeméeri at hundred years ah thumma baat gannaaw loolu ñu laaj kam la bis yow ñaata at wala ñaata waxtu nga tari fii yaani biñ la ree ak léegi diggante time bi ñaata waxtu la waaji mu ne allahu akbar so yaay waaji mu ne mu ne benn fan قال لبست يوما او بعد يوم من بين فن ولا half benn fan wala lu manqué benn fan mooy xaaf benn genn subhanallah léegi yàlla subhanahu wa taala bugga na jàngal Uzayr alayhi salaam moom laajte bi nga xam ne moom la laajte yàlla subhanaka wa taala mooy naka la moo dekkalee nit ñi nga xam ne dee nañ dara desut si ñooñu loolu yàlla subhanahu wa taala si mun munam si kémtaa kémtaanam delloo leen back to life كم لينكو نملا دفري سبحانه وتعالى قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يا الله سبحانه وتعالى من من ديدت يو دا فوغني بينا بس ولا جينا والي بس نغا يا الله سبحانه وتعالى من كون ديدت يو يانسي حال بي يانسي كونديشن بي رينين لا فور 100 ييرز تيميريات تيميريات ويا الله سبحانه وتعالى ليغي بوكو كو yàlla subhanahu wa taala léegi bugga ko woon fanzuru ila taamika wa sharabik léegi xoolal li nga xam ne mooy sa ndox bi nga xam ne moom nga àndaloon ak sa lekk bi nga xam ne moom nga àndaloon bi nga doon tukki balañ laa rey for hundred years fanzuru ila taamika wa sharabika lam yatasanna yàlla subhanahu wa taala mu ne ko ne sa ndox bi dara jotu ko sa lekk bi dara jotu ko for hundred years waa ji Uzeyr alayhi salaam moom dee na wala saan nga Um, yaramam bi ak bon si tàkkale ko moom nekkatut nit because legi dena decayed and decomposed for hundred years so for Uzair alayhi salam, by balaa then nañ continue story bi then after naa ñoo explain li ma bëggoon a wax yàlla subhanahu wa taala mu ne ko ne lam yatasanna dara jotu sa ndox bi dara jotu sa bi for hundred years waaye everything else around you yàlla subhanahu wa taala mu bàyyi li nga xam waxtu go through li nga xam ne mooy di normal process mooy nit ki nga xam ne um, deena wala loo xam ne deena for hundred years <laughs> di nga gis ne loolu dara du ko desel maybe worst case li nga am mooy bones waaye yaram bi moom dem na yoonam wanzuru ila ximaarika te wax tamit nga xool li nga xam ne mooy sa um, mooy sa mbaam bi wanzuru ila ximaarika wali najalaka ayatan linnaas dañ la won كم تاني يا الله سبحانه وتعالى آية للناس نعم <clears throat> آه لين ننكو ون ننكو دف كم تان فن نيني وانظروا إلى الإعظام وانظروا إلى الإعظام كيف ننشزها ثم نقصها لحما so يا الله سبحانه وتعالى منكو نحولا لنها همنا مويسا مبامي ننكو ديلو سنين ملو nañ ko delloo si ni mu meloon soo si si saas boobu noonu waa ji Uzeyr salaam mu gis mbaamam bi nga xam ne dee na dara dara desel ko after hundred years mbaam bi yàlla subhanahu wa taala si kimtaanam si coobarem every part of li nga xam ne mooy mbaam boobu noonu dooree ko si der yi dooree ko si kawar yi um, làmmeñ bi noppa bi everything li nga xam ne moom la mbaam bi amee pour mu def ko mbaam Uzair alayhi salam si kanamam mu ngi gis yàlla subhanahu wa taala mu in the parts you know, one by one one by one one by one mbaam bi di ah mbaam di ñëw together as mbaam so parts you know, yi nga after hundred years they had all this past there was nothing there Uzair alayhi salam mu door parts yooyu know, one by one ñuy know, from one place to the other from one place from from one decomposed and decayed place ah parti yooyu noonu yëpp ñu ngee ñëw together ñu ngee ñëw ñu ngee ñëw ñu ngee ñëw ah boti ñëw duga si li nga xam fi nga xam ne foofu lañ nekkoon noppa bi tamit wala noppa yi tamit naka noonu bakkan bi noonu ah bëñ yi nga xam ne ñu si biir gémmiñ bi làmmiñ bi kawar yi yi yëpp ñëw understand nga ba mu nekk li nga xam ne mooy mbaam bi nga xam ne moom moo deewoon hundred years ago ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نقصها لحما ننكو دلو نملون دلو meloon delloo ko li nga xam ne mooy yaram bi ak mboolam li ثم نقصها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لكي واجي خامني موم مو لاجون يالا سبحانه وتعالى قال أن يحيي هذه الله بعد موتها yàlla won ko si kanamam life in front of him xaqul yaqin naka lay dekkali ñi nga xam ne ñoom ñoo dee si mbaam bi bi nga xam is a similar example ah pour won la li ni mu yombee si man noonu la yombe tamit pour ma man man ma jox ñii wala saa dekkali leen indi leen back to life in fact seen first creation pour sakalen the first time without any materials without any raw materials without any blueprint loolu moo gën a ami logically loolu moo gën a jafe dan yàlla subhanahu wa taala recreate li nga xam ne loolu la create oon understand nga already obviously loo xam ne musu koo def understand na loolu moo gën a jafe pour def ko dan li nga xam ne def nga ko before léegi yaa ngi koo ñëw pour replicate rek so yàlla subhanahu wa taala si kanami uzeer won ko naka la moo dekkali li nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne ñoo dewoon noonu loolu lu yomb si yàlla subhanahu wa taala in wa ma dalika ala allahi loolu lu yomb si kanam bi borom bi tabaraka wa taala Uzayr bu mu gisee lii mu gis ne moom si boppam yàlla rey na ko for hundred years mbaamam bi nga xam ne onasaan nga euh, mbindaa fi yàlla la subhanahu yàlla rey na ko for hundred years decade ak deep compose mbaam bi dem yoonam dara desatul si mbaam boobu noonu waaye li nga xam ne mooy ndax Uzeyr alayhi salaam bokki jullit yi ah, nañ ko xoolee suñ boppa soo amee lekk boo xam ne dugaluloo ko si fridge su tàngee su yàggee ba yàgga benn fan la ñaari fan la lekk boobu noonu doo ko mun a lekkaat because yaaxu na waaw ah, naka noonu ndox tamit soo ko tegee tëjuloo ko nga bàyyi ko diiri waxtu da nga ndox boobu noonu soo ñëwatee doo ko bugg naan kon ndox bi dina yaaw By Allah subhanahu wa taala in that one setting in that one environment boo xam ne uh, benn naaj naaj bi moo faa génn benn ngawal uh, ngelaw moo faa fuuf amut amut separate compartment because Uzayr alayhi salaam foofu la nekk so moom foofu la nekk si Ben aduna boobu noonu si Ben place boobu noonu mbaamam Ben place boobu noonu la nekk lekkam benn place boobu noonu la nekk ndoxam benn place boobu noonu la nekk mboolem li nga xam ne loolu la àndaloon at that point foofu lañ nekk so li yàlla def mooy yàlla subhanahu wa dafa téye li nga xam ne mooy waxtu si ndox ak si lekk yàlla bàyyi waxtu si yeneen mbiri yëpp mbaam bi dee décompose Uzayr alayhi salaam dee ah. so mbaam bi yàlla yàlla bàyyi waxtu mu dem ndox bi ak lekka bi yàlla téye waxtu so looloo tax for hundred years ndoxam ak lekkaam dara jotul leen yàlla dafa téye ñooñu were not exposed to that same sentence ak uh, um, time bu yàlla bàyyi ñeneen yi waaye yàlla li yëpp lu mu ñoo woon rek mooy uh, inna allaha ala kulli cheyin qadir comme Uzayr alayhi si boppam bu mu gisee kéemtaan bi yëpp lañ la wax qaala um, قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نبس ديكي تاي من سرنا حمناني يا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير yàlla subhanahu wa taala moom moo mun mboole mbir ne yàlla mun naa def mboole mbir moom gisee live in front of him yàlla subhanahu wa taala ni moo dekkale nit ñi nga xam ne dee nañ moom si boppam mu sedd ne yàlla subhanahu wa taala mooy ala kulli shay'in qadir moom moo am man-man pour def mboole mbir so mbokki jullit yi lii mooy stories of the Quran so di ngeen gis ne li amna na njëriñ yu bari nga xamne yoy nañ ci mëna jëlé jëli ne yàlla subhanahu wa taala mbokki jullit yi faalun lima yurid mom liko neex la day def te mom mun naa def mboole mbir inna allaha ala kulli shay'in qadir ne amu dara lo xamne ne yàlla subhanahu wa taala tehnako wala amu dara lo xamne ne yàlla mënu ko def ngir yàlla subhanahu wa taala si boppam moo wax ne la xalqu samawaati akbaru min xalqi nnaas mooy binda la xalqu samawaati wal ardi akbaru min xalqi nnaas ne binda asamaan ak suuf moo gën a jafe li nga xam ne mooy sàkka li nga xam ne mooy doomi adama pour binda doomi adama loolu is the easiest thing for allah subhanahu wa taala waaye doomi adama boobu noonu moom moo gën a mun a nekk ki nga xam ne moom moo war yàlla moom mooy mooy yàlla dan mbindaaf yu makki wala mbindaaf yi rëy asamaan du musa moy yàlla subhanahu wa taala souf naka non waaye domi adama mom ak tuuteyam mom ak yombayam pour defar mom mo gëna am sañ-sañ pour moy yàlla subhanahu wa taala raw bolam yenen mbindaaf yi so li moy li nga xamne moy stories of the Quran I hope uh, li story la bo xamne inspire na ma mon suma bop ak mboolem ñi nga xamne ne ñu ngi déglu pour ñu gëna mëna déllu waat ci li nga xamne moy mooy alquran Euh, mu nekk li nga xam ne daf ñoo jegeñ loo suñ borom tabaraka wa taala ñu si suñ aduna ak suñ àllaaxira because alquran message yi ñu amee nekkuñ nekkuñ message pour pour suñu aduna wala suñu àllaaxira rek waaye is all encompassing euh, mooy euh, nettali yi suñ si jëlee njëriñ nañu dimbale aduna ak àllaaxira so lii mooy ni nga xam ne mooy jaar-jaar bi nga xam ne moo amoon diggante Uzayr alayhi salaam ak i boromam tabaraka wa taala gannaaw loolu yàlla subhanahu wa taala toppale li nga xam ne mooy story Uzair alayhi salaam ak bu Ibrahim alayhi salaam so ambiya alayhi salaam ñoom seen bopp at some point laajoon nañ yàlla subhanahu wa taala parce que ñu laaj tey mooy Ibrahim alayhi salaam moom tamit laaj nañ yàlla subhanahu wa taala wa id qala Ibrahimu rabbi kayfa kayfa tuhyi al allahu akbar mu ne Ibrahim alayhi salaam moom tamit laaj na boromam tabaraka wa taala yow suma borom dama bëgg nga won ma dama bëgg nga won ma naka ngay joxe dunda naka ngay dekkali nit wala naka ngay jox nit ki dunda kayfa tuxyil mawta ah naka ngay delloo nit ki nga xam ne dafa dee back to life so ibrahima alayhi salaam ki nga xam ne mooy yonent yàlla la tabaraka wa taala ñoom ñoo gën a jegeñ yàlla tabaraka wa taala ñoom ñoo gën a uh, xam suñ borom tabaraka wa taala moom si boppam laaj na yàlla façon laajte yi so bokki jullit yi yow mi nga xam ne yaa ngi maa déglu wala yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan su fekkente ne yow sa boppa door nga di laaj in your mind yàlla subhanahu wa taala façon laajte yi bul foog ne yow ah, li nga def is wrong waaye nga xam ne am na jaam yu baax yi nga xam ne ñoo la gën ñoo xam ne laaj te woon nañ façon laajte yi yàlla tontu leen si biir alquran so yow jarul pour yàlla tontu la because already tontu bi nga xam ne moom mooy tontu sa laajte bi yàlla subhanahu wa taala tontu na ko ba pare si alquran so dellool sa boppa si alquran ni nga gis um, um, di nga gis li nga xam ne la la yàlla tontu so Ibrahim alayhi Salam lii la ya lii la laajoon yàlla tabaraka wa taala yàlla subhanahu wa taala tontu Ibrahim alayhi salaam <coughs> la ko tontu mu ne ko yaa ibrahim allahu akbar man maa si teg loolu waaye aaya bi yàlla subhanahu wa taala di bentey di wax ak ibrahima alayhi salaam yàlla lan la ko waa yàlla subhanahu wa taala mu ne ko ne qaala awalam tuumin ibrahima xanaa yow gëmuloo allahu akbar qaala awalam tuumin xanaa yow gëmuloo ibrahima alayhi salaam xanaa yow amuloo iman xanaa yow xamuloo sa borom tabaraka wa taala ibrahima alayhi salaam subhanallah man of wisdom lan la tontu yàlla subhanahu wa taala لا لا لا قال بلى يا مبرم والله قمنا من نتي ايمان لا ولكن ليطمئن قلبي ولما بوغرك موي سي لاتيا بي لما سي اوت موي ليغا خامن لو خامن نا دالال سما خير يعني آه، دغنا خامنا لا واي داما بوغا جيس practical example بو خامن بوبو موم دوماكو مونا ويدي لو خامن اك شيطان لوم مونتي جاهسه جاهسه li dama ko gisal suma bopp so kenn du ma mun a ñëw wax ma leneen loo xam ne moo ak lii because dama ko gis live with my own eyes xaqul yaqi yàlla subhanahu wa taala mu ne ko ne kon léegi nañ dem tururi joni bi nga xam ne boobu laa jaaroon ak simila wan ak uzair alayhi salaam pour ma won la ni ma koo defee tabaraka wa taala qala fa xuz arbaatan arbaatan min adtoyr fasurhunna ilayka summa jaal ala kulli jabalin minhunna juzaa allahu akbar yàlla subhanahu taala léegi mu ngi jox ibrahima alayhi salaam def lan assignment mu ne ko ne léegi dama bëgg nga dem nga dem jàppa ñeenti picca yoo xam ne nekkuñ benn picca yu ute four different types so imagine the difficulty of even catching one mooy benn picca pour jàppa loolu noonu yàlla subhanahu wa taala mu ne ko ne demal ut ñeent four soo utee ñetti picca yi wala ñeenti picca yi nga xam ne dañ ute nekkuñ benn ku nekk si ñoom nga rey leen rey picca bu nekk ah, jaxase yaani mooy mix ah, li nga xam ne mooy seen ah, mooy picca yooyu noonu soo leen reyee ba pare jëlal kuur wala jëlal loo munti jël onosaan nga pound onosaan dóor leen den nga mix nga mix yaram bi su ko defee ah, doo mun a xàmmee picca bi la yaramam nekk nii picca bi la yaramam nekk nii because already mix nga yàppa yi so picca yi yëpp mix nañ léegi rey nga leen mix nga leen kenn du mun a seppi benn picca si beneen picca so léegi yaani seen um, seen yaram bi yëpp mix na mu ne ko ne soo defee loolu ba pare léegi nga ñëw seppi leen into four parts ah yaram yooyu noonu seppi leen into four parts nga eeg si ñeenti ah, montagne mountains si montage bu nekk nga teg fa benn saam montage bu nekk teg fa benn saam montagne bu nekk teg fa benn saam ba nga am ñeenti picca yooyu noonu yëpp teg leen si ñeenti montagne soo paree nga wàcca thumma jaal ah thumma jaal ala kulli jabalin min hunna juzaa soo wàccee si suuf léegi nga oote picc bu nekk ak turam picc bu nekk nga oo ko ak turam Ibrahima alayhi salaam def li mu wàcca dem door di ooyee picc bu nekk trop picca bu mu oo di nga gis loxoom bi jógee si montagne montagne bi ah kawar bi jógee si beneen montagne loxo yi jógee si beneen montagne yaram yi nga xam ne ñu ngi mixoon jógee si beneen montagne so moom picca bu mu oo rek picture boobu noonu xam na moom body parts am yi si ban montagne lañ nekka ak si ban saam so saam yooyu noonu door di ñëw together picture bu nekka di jël parts am picture bu nekka di jël parts am ba picture yi yëpp ñëw nekka kom niñ meloon balaa Ibrahima alayhi salaam di leen rey ñu delloo waat si xaal ak condition boobu noonu si ndimbali uh, si si doole yàlla tabaraka wa taala Ibrahima alayhi salaam bu mu gisalee lii boppam subhaanahu بمجيس علي اللي بوبا أمغم سبوها من وعلم أن الله عزيز حكيم موي يالا سبحانه وتعالى بوي بقول بيغا حبنا موي كينغا حبنا أمنا دولة أكينغا حبنا موي أجي حرين لتبيت الله أكبر بوكي جلتي لي موي القصص القرآن موي نتالي ستوريس كينغا حبنا نيويس موي فيو ستوريس كينغا حبنا ريك يالا سبحانه وتعالى بيكو ستوريس القرآن دي اللات very beautiful stories as well Why, what to be the family? mu ngi joo jàmm lii la ñu amaloon mbokk yi um, stories um, from the Quran or stories of the Quran Moy um yi nga xam ne um, nañ ci jëlee ay njëriñ yu bari bokk na si njëriñ yooyu noonu balaa waxtu bi ñu jàmm mooy ñu xam ne suñ borom tabaraka wa Euh, so léegi lépp li nga xam ne amuñ ko suñ borom subhanahu wa taala mooy li nga xam ne laajuñ ko waaye suñ ko laajee rek euh, ñu gom comme ñi nga xam ne ñoom ñoo gomoon euh, balaa ñun ni ñu yaat laajte woon yàlla subhanahu wa taala seen ay ak seen buga buga yàlla subhanahu wa taala dina jëflanteeg ñun comme niñ jëflanteeg nit ñooñu noonu soo ñu xam ne kii mooy suñ borom nañ xam ne suñ boolem problème amul képp amul kenn koo xam ne nañu mun a um, solval suñ problèmes ku suñ borom subhanahu wa taala so nañ ko jubal ñu defar suñ diggante ak moom su ko defee si mboolem jafe-jafe wala si mboolem aajo buñ nekk rek ñu door di ikkati suñ loxoy ñaan yàlla subhanahu wa taala fastajabna lahu yàlla dinañu tontu yàlla dinañu uyu comme nuyu num nuyu uyoo li nga xam ne mooy nit ñu passé yi mbokk yi waxtu waxtu bi jaamu nañu um, ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo facilité programme bi Pa Ousmane um, gaayam yi ci studio bi bokk na ci ñooñu Moussa ñi nga xam ne ñoom ñoo faciliter programme bi ñu ngi leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala nangul leen ah, lii ñun ñi nga xam ne tamit ñu ngi si programme bi yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko ah, for his sake only ak tamit ñi nga xam ne ñu ngi déglu wala seetaan yàlla subhanahu wa taala nangul leen seen seetaan ak déglu bi yàlla subhanahu wa taala feeñu fay bi ah, bés bi nga xam ne bés boobu noonu la ñoo suñu wéri koor yàlla subhanahu wa taala nangul ñu suñ mboolem ñaan suñ mboolem or yàlla subhanahu wa taala jégal ñu suñ mboolem ñaawteef ak suñ mboolem bàkkaar yàlla subhanahu wa taala mu ndefal ñu wéri koor bi wéru jégal wéru jegeñ suñ borom bi tabaraka wa taala wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain be benen bés inshallah dinañ continuer programme bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh